yéen ñi safoo di topp 5 TV maa ngi leen di nuyu te di rafetlu bu baax seen ànd ak ñun dalee nag jàmm ci li gën a fës yi xibaar yi dañu koy door ak njiitu réew euh, mii di makki sàll moom nag sàkku na rek ngir ñu jëmmal convention collective bi jëm ci wàllu ko média yi waaye itam euh, ñu dooleel liberté de la presse mu mel ni moom Macky sàll moo ngi wéy rek di wane bëgg-bëggam bi nga xam ni am na ko euh, ci rek tegaat ci yoon yooyu les médias ndax ci conseil des ba woon démb ci la xam lu ni mel insisté na bu baax a baax si ñu sàmm àq ak yelleefu taskatu xibaar bi ak ñëpp ñi nga xam ni ñooy liggéey ci média yi ñu si mel ni technicien yeeg caméraman yi euh, ñu woyal euh, gannaaw bi nga xamee ni nag dañu ko toroxal pamti pamtee ko ca ñaning euh, Guy Marius Sagna yëkkati na ay kàddu jëmale ci mbir mi muy ñaawlu bu baax a baax taxawaayu gendarme yi ndax nee na rek bi ko nervi yi songee dañoo taxaw di ko seetaan moom nag activiste bi li xew lépp ci kaw maire bu kudd eh, ci la ko daal di tekk di Maguette seen eh, ndax nee na ay nitam ñoo ko def boobule ñaawteef waaye meer ba nag weddi na lu ni mel ndax nee na laalewul eh, si lu jege wala lu sori ci boobule agression ñu def ci kaw gi Marius Sagna moom nag activiste bi daa demoon fa ñaning ngir teewee benn réunion boo xam ni askan wa ñoo ko doon amal ngir ñaawlu rek ak naqarlu seen suuf bi ñu ne rek dañu koy caxat caxatee ñu dem ca diwaanu Kër Thiadiaye foofee nag ka fa nekkoon maire di Abdoulaye Diop moo nga ñu tëj ca kaso ba gannaaw bi ñu dëggalee coowal escroquerie faux et usage de faux en écriture publique ak yeneen bi nga xam ni moom moo taxoon ñu teg ko loxo ak yeneen juróomi nitam àjjuma ji ñu weesu moom nag nee ñu ci jamono bi nga xam ni la nekkee woon maire da doon joxe ay terrain nit ñoo xam ni daawuñu ko sax yëg nee nañu nag ci copie carte d'identité ya ñu fa daan déposé ci mairie ba la doon sukkandiku ngir rek jëf dilam yooyu bu ca noppee terrain bi euh, daal di wax ay nitam ngir ñu jaayal ko ko ñu wëyal àddu ci euh, décès ki nga xam ni moo di élève sous officier euh, bii di Abdoul Kader Johnson gannaaw nag ba ñu defee autopsie ci ab néewam la ca tukkee woon di mort naturelle njabootam dañoo bañoon ni rek ànduñu ca ba tax rek ñu sàkk woon benn contre expertise gannaaw nag ba ñu ko defee ca hôpital Idrissa Pouye bu Grand Yoff la mu fësalaat rek mooy Abdou Kader Johnson moom mu mer mort naturelle la daal di faatoo ñu wëyal ba tey àddu ci wàllu ko yoon Madiambal Diagne ak Téliko ñoom nag tey ji rek ci alxames gi la ñu leen di déglu taskatu xibaar bii di Madiambal Diagne moom it tey dina taxaw ci kanamu tribunal grande instance bu Ndakaaru ngir tontu nag ci tuumay diffamation yi nga xam ni moom la juge Souleymane Téliko tegoon ci ndoddam ñu wëyal dem ca diwaanu ko Linguère ak coow la fa amoon te rek ay bébé faatu woon fa ki fa nekkoon nag directeur di docteur Abdou Sarr lépp nag ci kaw rek Sarr la ko daal di eh, këpp eh, ca ba ñu koy eh, déglu ngir rek lu soxal enquête ba moom dafa xamle rek ni jëwriñ bi gàlloo wér gi yaram mosul rek affecté benn agent ca hôpital ba 2017 ak léegi mu xamle ni ñi koy ŋàññi ay privilège yu ñu mérité wul rek la ñu bëgg moo tax ñu koy ŋàññ te moom daa xeex ngir rek soppi xar kanamu hôpital bu Linguère boobule ba tey nee li xew ñaawlu na ko te lu mu rëccu la waaye nag ba mbir ma di xew moom nekku fa woon moo nga diwaanu ko Diourbel eh, ci ab ñaareelam noonee la ñuy wëyee defal leen eh, tolluwaayu mbasum Covid 19 bi ci réew mi ak xayma bésu tey bi eh, yemook alxames juróom-benn fan ci weeru mai atub 2021 si junni ak ñaar fukk ak juróom-ñeent test yi nga xam ni moom la ñu jot a amal fanweer ak ñeent ñoo si ñëw am doomu jàngoro ji mu bokk ca fukk yoo xam ni dañoo dañoo jaxasoo ak way tawat yi te waa kër docteur doo leen topp fukk ak juróom-ñaar ñoo xam ni ñoo ngeeg doomu jàngoro ji te kenn xamul ku leen ko wàll juróom-ñeenti way tawat ñoo nga teud ci lalu sowe tasiya ndax feebar bi da leen lottal ñaari doomu adama lim nañu ko si nga xamni ne ñoo ñak seen bakkan yes ci mbassum covid 19 bi bi mu duggé ci réew mi ak légui nak limu ngi ci faatu àgg na ba si junni ak témèr ak fukk ak benn doomu adama ñuy ñaan suñu borom euh, jéggal leen té xay leen aljana ñeent fukk ak ñetti si nga xamni la mbass mi tëraloon wër nañu jamono ji nak témèr ak juróom ñaar euh, fukk ak juróom benn way tawat ñoo nekk ci loxol euh, docteur ñu leen di faj ba légui ñu wëyal des si lu soxal ba tey wàllu ko wér-gi-yaram ca diwaanu ko Jurbel nag lu soxal campagne de vaccination feebar bi di poliomyélite dinañu ko euh, door bés ni tey kon résion bu Jurbel mooy njëkk nag amal boobule campagne laataa ñu koy tasaare ci réew mi yépp euh, kii di docteur Ousseynou Badiane di ki nga xam ni moo jiite programme élargi de vaccination euh, moom it tey moom moo koy jiite mooy door boobule campagne li ko waral nag mooy ci ndorteelu weeru mars bi nemmeeku ca diwaanu ko Jurbel si ñi nga xam ni dañoo am poliomyélite feebar bi nag docteur Badiane nee ci xale yu ndaw yi la feeñaat rawatina nag ñi nga xam ni amaguñu juróomi at ñu des ca diwaanu ko Jurbel ba tey ak coow la fa lëkkale benn étudiant ak benn euh, femme mariée lépp nag mi ngi dooree ci bi nga xamee ni ndaw si bàyyi na numéro téléphone am ci page Facebook bu émission boobu di quartier général euh, te muy am ca Télé Futurs Médias euh, te ñu siy joxe ay cadeau bokk si ñi nga xam ni ñoom la ñuy tànn ngir jox leen ci kado yooyu le ci noonu benn étudiant buy jàngee ca université virtuelle bu Sénégal jël numéroom daal di ko cay yónnee ay vidéo pornographique ngir rek am lu mu seq ak moom euh, bi ndaw si sonnee nag ndax dafa ko tere ba sonn mu bañ ci la demee euh, daal di euh, porter plainte contre X ca police bu guy mbind ci noonu la gaayu lieutenant Moussa Faye yi daal di tegee dil ak ndaw si ngir rekk mu jox ko rendez ci noonu dañu ko tegee loxo ajjuma ji ñu weesu ci ay booru 22h gannaaw bi mu wuyu see ci boobule rendez-vous ci altine bi nag la ñu ko daal di jàllale ca tribunal grande instance bu Diourbel euh, li ñu koy toppee di harcèlement sexuel ak fësal ay image yu am caractère pornographique ñu jeexal ak actrice bi di Halima yi ñu gën koo xamee ci Marème Dial ci série maîtresse d'un homme marié moom nag ci ab vidéo jox na rendez ay euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo ko bëgg ngir leen li tax dëgg-dëgg gisuñu ko ci saison 3 bu maîtresse d'un homme marié ndax ba tey rek ñoo euh, jóguñu di ko laaj lan moo ko waral mu xamle ci vidéo bi ne ay euh, soppeem jóguñu si di ko taxawu ci muy feeñ wala mu ñàkk a feeñ ci caméra yi euh, ba tax mu ni dina leen nettali lépp ni mu deme waaye xamal na leen ni ba muy jël dogal bi neexu ko woon benn yoon ndax hésité na hésité waat te it nag tiitoon na te it sax rusoon na ci boppam ba tax mu ni ci weekend bi dina leen nettali lépp commencement ba fin kon fi la ñuy dar keppee xibaar yi ma jox leen dig dajee ëllëg incha allah waaye laataa boobu wéyal leen di abonné ci 5 TV bu leen fàtte di bës si cloche de notification bi ndax ngeen di jot suñu vidéo yi ci saa si jërë ngeen jëf